alhamdulilahi rabbil alamin nu ngay sant yàlla di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw nun waa xodd ba ak li wër xodd ba yépp noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant président Momar bu baax a baax a baax a baax ci liggéeyam bu rafet bi nga xam ne moo ngi ko liggéey ci commune tey yàgg na indi mbégte ci xoddu ba waaye tey dafa raw ndax moom bi nga xamee ne yàlla dogal na mu nekk président commune bu Kër Moussa booba xodd ba daanaka benn born moo fi am waaye tey mboolem dëkk bi eh, xanaa danga naan benn wala ñaar ñëpp am nañu seen ndox dugal ci seen biiri kër loolu soxlaam la yitteem la ci commune am yëpp waaye dafa mel ni ñun dañ ci raw waxna kéro binga bi nga xamé ni yónni na ay ndaw ngir yalla li nga xamné moy maternité bi ak ambulance bi kéro ndaw yoyu dama ne len su ngeen démé ne len président dé salatul xodd ba dara xam nga xodd ba du fi rek sanca ba ci xodd ba la bok jamm gën ci xodd ba la bok ngor ci xodd ba la bok lolu xeyna amna ñu ko xamul ba ñeenti village la waaw lii nag du sax pour xodd ba rek dafa fekk fii lañ ko defe waaye fii ba Mbul fii ba xiniin fii ba euh, Sañefil fii ba yaatu na ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp bu ko defee nag yàlla dogale ko fii waaye noog ñëpp ko bokk loolee nag lii nag da di lu rëy ci nun nu koy sant nu ngi koy gërëm nu ngi ko ñaanal yàlla yàll na ko fi yàlla bàyyi ba mu doyaleel boppam ba mu doyaleel boppam waaw lii nga xam ne nag moo nekk ci sunu kanam yàlla nañ ci am ndam yàlla nañ ci am ndam nañ ci ndam man de tànk mu ngi fi suma wax ci kaw tànk mu ngi fi laa wax maa ngi ci li may wax ci loolu moo di suñu dajale woon mbooleem li nga xam ne taxawe na ko ci dëkk bi dañuy wax ne tey li gën a am solo ci liggéeyam tey ci la ñu ne ndax maternité ambulance ku xool jamono bi jigéen ñi li ñoo li ñoo wax bari na ay dëkk yoo xamante ni jigéen ñi ñu ngi wasin je amuñu lu leen yóbbu eh, bari na ay jigéen yoo xam ne ñu ngi tollu ay diggante bari ñu lu leen di transporter Momar def lu reuy li liguey maternité bi be pare liguey jox ñu encore ambulance yoyu facilité yakarna ni waxuma jigen ñi waxuma mag ñi waaye gone yi sax xamna ñu né li dé avantage la bo xamanteni mi wax dëgg naam yalla tay inauguration tay inauguration bi dëkk bi mag ndaw go ñëpp dañu waroon ñew ndax li du intérêt général la intérêt la boo xamante ni bii mag ñeeg ndaw ñeeg jigéen ñeeg ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk donc euh, mën na gën a yaatu mën na gën a yaatu ndax maternité ku ko tabax ci dëkk yóbbu fa ambulance dama ne dëkk ba desalootoo leen dara dara nga leen desalatul bon nag nu ngi koo sant nu ngi gërëm nu koo sant nu koo gërëm nu ngi koo ñaanal yàlla yàlla gën ko fay yàggal yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal yàlla na ko fi yàlla gën a yàgg du dëgg de mën na gën a yaatu noonu waaye daal sant nañ ko gërëm nañ ko lii moom bu teraanga doon doy ñu ne doy na teraanga ci biir jamono maternité ci dëkk ambulance wax dëgg naam yàlla jigéen ñi kontaan nañu lii sax jigéen ñee ci waroon wax